jërëjëf jëf asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne jamono ji yéen ñi nekk di ñu seetaan si Eye Africa dot TV ak tam ba léegi yéen ñi nga xam ne yéen nekk di seetaan tam si Facebook bi rek euh, di leen wane nag di leen dala jàmm rek si suñu spécial édition bi nga xam ne ñu ko baaxoo di ko am nag daanaka ay fan rek te nag lii moo nekk am waxtaan bu nga xam ne nag Africa TV ñu ko am pour jëm a waxtaan def suñu kéemtalaay kattan si lépp luy war a mun a tax ba jàmm bu ñu xamee Gambia gën a mun a nekk di sax te nag waxtaan bi nag incha allah rabi di ngeen ko déglu tam si talanga FM di suñu colaa community radio Diagne di leen nuyu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm rek di leen wax ne dal leen jàmm rek si afk.tv ngeen ànd si man mii di biram S Diop man nu nga xamante maa nekk seen am host bi ànd ak ku nga xam ne moo nekk suma naataango mu nekk Lamine yes Lamine nga nuyuwante askan wi. assalamu aleykum badingolu mbal ɓe kontonna ay africa télévision o to yala min fananko i la ila be na facebook ola karola kal bisimillahi nin programme mi ye lon ko wolem special édition ti te min sotale dron pour ka kaca kale kuwol la min be dendin alhaalol la anin kekuwolu minnu be kerin gambia banko ñiŋ kan jang e eh, mbalo bisimillahi la kal tendu kal jahi pour ah, programme o ñin dron alsen jee je e, nin ala sonta ku jamalle be je menalo mbo wolle lu itandila e la programme o baraka bibi ok jërëjëf baax a baax am Lamine EFFS Dabo kon nag duñ def dara su may naka tey ji naka ñu nga jëm a waxtaan naka ku nga xam xamante moo nekk suñu ges suñu ges naka tey kenn la ku nga xam ne naka ñëpp xam nañ ko si wàllum liggéeyam bu rafet te nag kii moo nekk ku nga xam ne naka suñ ko waxee turam ñëpp dinañ xam ne tey am nañ gan moo nekk nag Babacar Ama Cissé Babacar Cissé dafa nekk ku nga xam ne suñ ko waxee nag ñu bëri xam ne ne moom nag liggéeyam moo amee wàllum tasum xibaar te nag mu ngi bokkoon si benn kuréel ñu gën a xamee si Gambia Press Union maanaam mbootaay bu amee képp ku nekk di aju si wàllum tasum xibaar boobu mbootaay bu ko daldi boot moom moo nekkoon seen vice président bi te nag loolu mu ngi nekkoon ay jamono si gannaaw té nak ci biir lo nak ñu gisaan mom nak mu ngi nekkal lu gën xamé ci si correspondant daf lay baaxoo di binda di jëm a yëkëti nak muy xibaar diko jëlé fi ci biir réew mi yob ko ci biir bitim réew té nak ba légui dafa nekk di def lu gën a tam si freelance manam da fay baaxoo di binda di yob xibaar si bépp kay xibaar nga xamné ne mo nekk si bitim réew mom amna lu wara fukki at ak juroom ñene tak du oppa ci si tassum tasum xibaar fini ci biir réew yi Gàmbi nag tey nekk sun gan kon na baabkat di la dalal baaxa baax ci special edition bi jërëjëf ah, Birame ak ah, Lamine ah, suma naataango yi ak mbokki déglukat yi ak ñu di seetaan maa ngi leen di gërëm bu baax jërë ngeen jëf. na tam loo weesu nag tey naka waxtaan bi nag dafay gën a yaatu lool ndekte tey dafa nekk si kàllaama wolof ak mandinka waaye di wax nag yéen ñi nga xam ne yéen a nekk nag si biti nag di ngeen mun a bokk bu baax a baax si biir programme bi te waaye nag dafaa nekk si kanam tuuti nag di ngeen mun a jaaral seen comment yi. ngeen jaaral ko si facebook bi wala sax at the same time ngeen yone ko si li nga xamne mo nek si telephone call way ci kanam ak kanam la muy doon suñu demee waxtaan bi dembe sori number bi nak mu ngeen ko standby mo nek si 2977944 29 77944 number bi nga xamne so lañ ko lé inshallah rabbi rabi rek di ngeen bokk si bi programme bi laamin kon xamna naa lu def rek moy nga wax suñu kalama mandinkay ama bu baakha ba kan mona nek babakar sisi. Eh, baraka bake bibi badiŋolu ko ŋa fale ñameŋ luntan buñarin ba me alon ko wole be mfe nin uh, studio to jambe wala mu babukar sise te babukar sise ate mu fannin kelde me ko kibare tala karola wala mu ala fanna nyinti ana akata moti me yalon ko aka kibarolu ta aka safe uh, munafon ka keno ala banko kanim banko e bantala ga me freelance journalist ate kata moti me yalon ko makamo la karola anene kata nu uh, president normalan ko tile gambia la kibarta kafu ba nyin kono anon babukar sanji tang anin kononto ayo sotonno wuccoti mi alon ko atarra kibari tala kuwollel kunna nin kumate mum molti mi alon ko e safo dron e fankaso lem so baɗigol um ɓe ku jamallel kacala min yalon ko aɓe tara denni surwa kawni manni ka kamla ko bibi yafale ñamen ni nallundan ba babougar sise alright abaraka bake lamine kon bile ka baboucar dañoo dugg carrément si waxtaan te nag lu ñu waxtaanee li to balaa maa ñëw naka si baboucar mooy am ku nekk xam na ne tasum xibaar si boppam dafa laajte xam-xam te xam-xam boobu nag ku koy war a def mooy taskati xibaar si boppam benn nga jàng ko mbaa soo ko jàngee presse nga am si may ma yàlla ak tam nga mun a xam bu baax ràññee lu nekk dëgg ak lu nga xam ne nekkul dëgg kooku si boppam leen gëm ni bokk na si wàllum tasum xibaar baabu ko dina ko a leeral bu baax a baax dineen waxtaan bu baax a baax si kan moo nekk taskati xibaar ak tamal lan moo nekk liggéey bu nga xam ne taskati xibaar am na ko war koo def si jëm kanami mi tam dina a xamal tam bu baax a baax am na yenn bruit bi tasekay xibaar yi ngeen a xamee si website yi nga xam ne nag ñu bëri ma xamul nag ban moo si dëggu ak ban moo si dëggut ak tam lan moo nekk lu mu dal di làmboo gannaaw bu loolu weesoo tam dinañ waxtaan tam bu baax a baax ndax gis nañ ne nag muy am fan bu ñu àpp ne muy Adama Barrow mu nga xam ne moo nekk di président elect war na moo jot daanaka fukki fan ak juróom-ñeent si weer bu nga xam ne moo nekk weeri janvier atum 2017 moom lañ ko war a warloo. ñu bëri ngay wax ne dañ koy waarloo am na ñuy wax ne si boppam duñ ko waarloo waaye nag loolu si boppam naka yàlla xam te naka dina si yëkkati suñu waxtaan tuuti dinañ waxtaan tam ndekte démb rek am na benn kàddu nga moo dali béykoo si wàllum bunti police yi di yëgle ne képp ku nga xam ne war na moo def lu gën a xamee si convoy maanaam nga war a mun a lëkkalante ay oto oto lu war a ëpp si juróomi oto dem si kaw war ngaa am digal bu ngeen a xamee si pamit permit bi nga xam ne naka police ñoo ko joxe mu war a jaare naka si li nga xam ne moom moo nekk si gaay regional police commissioner su nekk si gox goxaan yu nekk si biir réew mi kon nag waxtaan bi na gën a yaatu lool loolu moo nekk bunti waxtaan bi nag tey duñ def dara su may dañoo ñëw rek jema jox lamine mu wax ci mbakki suñu mbokki société na leen ne li moo nekk di main topic bi nga xam ne tey jii dañoo war a suñu fa béyko ma soog a bu baax baax babacar lamine baraka bake bi badiŋolu ko bibi ye na na kaca kuŋolu bitanin fannal men na wo le be dendiŋ niŋ kibari tala karo la kibari tala mo sifa juma le ti aniŋ fana a ñanta mu mankutu sifa juma la soto la aniŋ mu ne faham ñanta tara la je pour a maari sa lon no kibaro na nata naŋ juma lem kibaro to me ye lon ko kibari kendo leŋ aniŋ mu neŋ kibaro to me ye lon ko fanaŋ kibaro ñiŋ ino a fufulewo leŋ waraŋ mu ñenti koma a maŋ kendeya ñanda fanan eh, kaca le fanna la mi alon ko woba tarra dending nin alhaalo la membe be kela eh, kalendirote mi yalon ko banko la ya yaytandi ko januwari kalo til cannin konoto president mi yalon ko carte o fayta wole kanyola karola memo a adamo barote eh, na boto je fanan be la le ye kayitandiro ke kuma ko mi yalon ko eh, kunun ko wala bota inspector general of police police wala nyaron ko bulu kayitandiro ke ko momorondindiro na tara ko be muna fanna jam mala silol la arra motol lel wattar la e mare dandan kan ka bo motol lulu hapo kada fo santo la don e mare nyante e muna fanna e kayto la mi ala famito de ka di mare la wol bebe kala fende mi ala ko nalba be kacala ko kayitan dala don bebi ya fo ale nyame alright baraka bake eh, Lamine am Babacar tey ñu ñëw naka dugg carrément si waxtaan bi naka mooy yow taskati xibaar nga fukki at ak juróom ñi ne ak lu ko ëpp yaa ngi tasum xibaar fii si biir réew mi kan mu nekk taskati xibaar waaw jërëjëf taskati xibaar mooy koo xamante ne dafay uti euh, xibaar ba pare tasaare ko ci askan bi hmm. ndax tasaare boobu noonu soo koy def comme taskati xibaar euh, doo ko génnee ci kaw nit ñi noonu ndax xibaar bi ci boppam dafa am fu mu war a jaar ndax bu ko defee bu tooloo ci askan bi hmm. mu nekk xam-xam ci ñoom te nekk lu bees ci ñoom te dina nekk loo xamante ne tam dinañ ko mun a jëfoo njëriñoo ko loolu nu muy mun a demee mooy euh, bu taskat xibaar bi dajale xibaaram euh, dafay njëkkaa gestu mm-hmm. ndax lii du lor ndax lii itam euh, li di xibaar bi ndax du loo xamante ne dina tiital nit loolu yëpp da nga ko ci war a génne. te xibaar bu jub la war a nekk tam ah, dafa war a nekk ci diggante nit warta nag xibaar bi nga xamante ne ah, dafa war a fiitoo benn fànn wala mu tooñ benn fànn boo xamante ne dina mun a indi fitna loolu yëpp xam nga ci tas xibaar bi la nekk te niroo ne daal li yëpp muñ koo xayma fii ah, ndax xëjut suñ waxtaan sax ndax li di liggéey taskati xibaar dafa bëri trop mhm. waaye ci gàttal daal taskati xibaar ku jub la war a nekk it Ah, dafa war a doon koo xamante ne liggéeyam bi ci jub la ko war a def. ok gis ne daal du indi uti utee ci nu muy tasee xibaar. ok ku nga xam ne liggéeyam dafa war a jub te du war a am uti utee si si doxalinu xibaar gis na ne jamono ji naka muy taskati xibaar yi ñu bëri ñu ngi indi confusion nekk jomb yëngal lu bëri si affaire ñu ngay wax ne comme ne militaire intervention dafa am Gambia léeg-léeg mu ngi am noo ko jàngatee. waaw ah, loolu niroo ne xibaar bu gën a tasaaru la ci fan yi daal hmm. ne dina fi am ay soldaar yu fay ñëw xam nga di indi kaara ngi ci réew mi ndax hmm. euh, li li xew ni li di problème yi politique bi am hmm. ci jamono ji comme que président bi bu mu demee toolu waaye bi nga xamante ne nangu result yi euh, ba ci dugal ay kii ci biir code loolu yëpp gisee nañ ko loo xamante ne daal mu ngi indi tardement ci di jébal doole loolu tax na ba façon xibaar yi tasaaroo waaye euh, li ci leerut mooy loolu nu ñu koy defee mm-hmm. waaye gis nañ ko ci euh, Facebook fa la gën a bari ak ci mm-hmm. yenn fànn xibaar yi nekk ci internet bi mm-hmm. ñuy online newspapers bëri na fa lool waaye ci jamono ji fu ñu nekk nii euh, ñu ngi gisaat bu bees boo xamante ni ñu ngi génnee benn lettre te mu ngi yor letterhead ECOWAS te ñu ne léegi moom stand by force la ñoo indi boo xamante ne ñu gis ne kaara gi am ci réew mi. Mhm. ñu garde ki di président bu bees bu ñu tànn ñu gis ne tam doomi réew yi tam kaara gi mhm. waaye euh, loolu niroo ne àndut ak leneen lu niroo ne dañuy dal kaw wala xeexay am ci réew mi. Mhm. so mu mel ni comme yow ama góom nga si lu wér këng ne lu gars yi wane ne comme ni ki soldat yi war a ñëw Gambie loolu war a am la. waaw loolu boo xoolee tam di nga gis ne. Euh, xibaar boobu mënuñ see wiiru mm-hmm. ndax euh, euh, ñi jógee ci coalition bi tam mm-hmm. ñu ngi bokk ci waxtaan jooju mm-hmm. um, ñeneenti président ñëwoon nañ fi ay ñaari semaine ci gannaaw di waxtaan affaire bi di ci def ay réconciliation les yaa niroo ne daal dañ say waxtaan gis ne daal affaire bi yëpp jubale ci jàmm loolu lañ ko bëggee waaye niroo ne façon xibaar yi moom loolu nekkul ne ci coalition bi lañ ko amee wala direct li jógee ko ECOWAS ak yooyu. voilà gannaaw bu la weesoo rek uh, laata ma ama uh, bàyyi suma naataango mu laaj na uh, laaj rek si Manika mooy am gis nañ ni am réew mi fu mu toll nii soo jàngatee fi dale xew depuis temps bu presse ñëwee fii bi léegi yaa ngi dégg different different kàddu ñii di wane ne comme ne kii dëgg la du wàcc su wàccutee li mooy am léeg-léeg mooy am la nga fu ne moom moo moom la taskati xibaar war a def si biir réew mi pour jàmm gën a mën a sax. waaw li ñuy ooyee conflict sensitive reporting. Mm-hmm. façon jamono jóge ko ci jamono bu ñuy sànni carte mhm. ah, ba bu ñu sànnee carte ba pare te façon gàllankoor bi am taskati xibaar bi dafa war a bàyyi xelam mhm. ndax ñunu wër ñoo nekk ñoo xamante ne ñoo mën a lawlaw fitna mhm. wala di ko gën a yaatal dañ war a bokk ñoo xamante ne ñoo war a wàññi fitna bu buggee jóg kon ah, ci loolu nag ah, ci façon jamono ji am na liggéey bu métti boo xamante ne du task xibaar rek wala di jël ay kaalama di ko sànni ci askan bi mm-hmm. dañ war a bàyyi xel nu ñëw tasee xibaar mm-hmm. ndax war a ñëw tiital askan bi mm-hmm. te waruñ leen di jox information boo xamante ne mi di xibaar ñu leen ko di jox ci anam boo xamante ne daal dina bu nu xatal seen xel loolu itam beneen mbir la buñ ci war a sel bu baax waaw léegi suñ bàyyi xel si fànn euh, ama euh, Nigeria ñu bëri ñu ngay wane ne ama euh, den am si ab website si nga xam ne den bind ne comme ne am na ñu nga xam ne dañu waroon dem vacation ay benn soldat militaire ama ñu wax leen ne bu leen dem vacation dem leen si ngeen toog Sénégal on the 19 nag ngeen buur dugga rek yëkkati fitna ama loolu yëg nga ko ndax naka bokk si li nga xam ne ama bokk la si nga xam ne yëg nga ko tam waaw niroo ne ba tey façon xibaar yooyu ñu ngee tasaaroo ba tey waaye waaw euh, loolu vérifié wu ma ko ndax euh, xibaar dafa niroo loo xamante ne euh, boo ko amee comme li ma wax rek ah, dafa war a am fi muy jaar ba nga war a mun a taxaw ne lii xibaar bu wuur la mhm. loolu moo amangut mhm. waaye bëri na ci wax yi ci internet bi mhm. ak website yi so loolu tax na ay ragal yu bari te dama day am ay calls. waaw ñeneen ñi dinaa ne am na ñuy jàll volontaire am na ñuy jóge Kombo fii sax di dem ci dex gi. nga loolu yëpp niroo ne tiital boobu moo tax loolu mm-hmm. waaw right gannaaw bu loolu weesoo mooy ama la nga foog ne daal moo ne war a nekk warugal bu nga xam ne man ak yow ak keneen ak keneen leen war a def gannaaw bu nga xam ne Adama Barrow saa muy wax rek li muy wax mooy ñëpp dal ñu nekk benn Halifa Sallah mu ne ñëpp dal ñu nekk benn président Jammeh mu tamit ñëpp dal ñu nekk benn la nga foog ne moo la nekk di common call bu nga xam ne naka war nañ koo defandoor pour mbir mi gën a waaw euh, loolu woote bu baax la te loolu mooy loo xamante ne moo ñuy jubale ci jàmm. Mm-hmm. waaye gannaaw loolu it xam nga dégg bu nekk boo ko buggee taxawal moom euh, foog nga gestu lan mooy problème bi. Mm-hmm. waaye li ko indi yëpp amut luñ ci waxtaan fum mu toll nii. Mm-hmm. waaye digg digg li ko indi mooy affaire yi élection bi. Mhm. ak bañ gi. Mhm. bañ gi sa mooy boppi mbir waaye dafa niroo ne président ci réew moo mun di nekk euh, comme any citizen doomu réew bu nekk yow danga war a bokk ci ñoo xamante ne euh, da nga war a aar doomu réew yi ak euh, sa bopp ak alal réew mi. Mhm. kon fitna warut a jógee ci façon fànn boobu ndax président daf dee waat ne. moom dafa garder constitution bi. Mhm. te constitution bi moo gën a màgg luwaay réew mi yëpp. te luwaay réew mi fa lañ day jëlee seen doole. Mhm. kon euh, lu demee noonu daal euh, dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax a baax. Mhm. kon fitna warta jóge ci fànn boobu. niroo ne bañ gi moo ko indi. waaye loolu it euh, ay waxtaan mu ngi am ci loola kon ñun mi di tax si baatam dañu war a doon ñoo xamante ne ci yooyu la war a bàyyi xel te ñu nekk ay gestukat. buñ nekk ñoo xamante ni dañuy toog suñ béréb rek di xalaatal suñ boppa di génne ay xalaat yu bees wala di sos ay xibaar suñ bopp baraka bake eh, babukar be lafilañin na se jama mool konoto diya kayitandi la mu ne mu kibaari taala la dookooti pour ka sutiyandi ala nin lonkamu baa bulo kibaar taala mu ne soto pour ka de jama okay eh, ko ŋa fo ye ñaameŋ ŋa fo ñaameŋ suru a kaŋ to doro wo mo kibaar taala lo do ko faŋ kuŋo mu meŋ tiŋ so wo domandi na fono jaŋ kaatu niŋ ko be kibaar taala la do ko be timmandi la jang i baa je la ko a maŋ kuŋ na waato faŋ kono bari kibaar taala la do ko mu ñine ti ka kibaaroo kafu ñoo ma kibaaroo mi ye a loŋ ka be moolu nafaa la eh, na e janjanta a be ke la moolu ye londoo be ke la E, fana a bena fala bake wala ñanta kel kibaro wo kibaro fana be futala mol ma di le wolem ko ka kibaro kafu nyoma nyama mi yalon ko jannabe fintila mol kan kibaro ñin sita silol la mil kis kis silol ti e be bekela kaji ko kibar kana finti mol kan e mil be masalan na mil be kijo faral wala mil be mol fatam fansila wala kallo mol tema bar kibaro nyanta kala fenneti mi yalon ko e a nyanta tilina mol be temale ni be mol mi la kibaro fola e i nyanta futali be male be la kalmole finti mol ma isaje ko kibaro tanyin kono amanke fasar kensenti bar tonya nyinolem anin kuma kese sato wala mi kibar tati ni na rajube ibe mundal fono la mi yalon ko wala ba dending kibarta buŋol la waraŋ kibarta dinkiral men ye a be banko kaŋ aniŋ banko ye banta la moolu be suuteeroo ke ñoo la ñaadi le miŋ to lemu dulaati daame a loŋ ko moo si dennoo je la kibaaroo soto la karo la niŋ taamanseeri dantaŋ do ah wo lemu a kumaarinbaa faŋo muŋ ti eh, eh, kibaar taalal ka fo mu e sos soos eh, wo lemu kibaaroo bii dulaati a kamata kibaaroo ye daloo le soto Eh, wo dalol fana fannal janjantale e eh, wo be ñine bulu ko ite kibaro bondi damen yo ye kibaro bi dalo men to e niya bondi keso kanje be kuma keso le fola yo woto nimbe kibaro bondi la damen woto asike dalati mi ko e lannole bijeti ya lon ko toña toña ñin kibari mbo damen e lanna dulale mum dum fana a kibaro sutiyata dulale dami ya lon ko kesole botaji fɔlɔfɔlɔ n'i y'o sɔrɔ dɔrɔn jama jama i ka kibaru kɛsɔ le sɔrɔ aa ah, o kun maa b'a kɛ kibaru b'o dɔ o mu ku kun maa b'a la ten woto saa ni momi man kata woto la wala ma woto kulo wala ma kuma mo ye wo ma faŋo na e kibaro min saata e baje la ko a kam ta kibaru de da sina i si kumal fo mili a ko a ah, si kibaro la sartol sala e nin ta fal kuma la bon la don janimbe de na denyo la memo branti wo le be dendiŋ fanna la miŋ ye loŋ ko kibaarolu ye itandirolu ke a be keeriŋ dinkiral to taariŋ ko soojarolu la sinfaña meŋ mu bantala banko soojarolu ti wo durne si kenoo booroo ti pour ka je ko gambiya banko la ñiŋ e maral buloo ka bondi bulu ka samba bulu a se sooneya noo ñaame moo doolu ye wo itandi ha uh, eh, fanna jamal fota uh, doolu be ñiŋ fola ko ni internet juube e min mu kibar bu ti milliard on ko be internet o to ɓe foño kono ni la computa malay sije si karan e dol videol ɓe je tumaɗo e sitane talol traje sojarol be janjandiŋi kayitanɗi ko sojarol le bina sapin kan wala ka yelemo ke kaje ko sembo e di forcé o kono ok o forcé sembe diña e hani coalition ola ñaton kol ya itandi ko e eh, wol kake kula baŋol leti comme misal fe niŋ gambiya tata futa tembeto miŋ ye loŋ kuwo ye buloo fayitol maŋ kuno je bantalan kol sine daaduŋ ci bari baawa kuwo ñiŋ be kaccaa dala to be tembo min to woto ate tariano la nyama akam a sai hani sai kachale be ke isaje nyomo yo ke min be kala kairo kayiroo ti wo ye kembe ye bari ñiŋ kibaari janjaŋ ñaa tuma doo be tembo min to nte se no fo ko a mbuloo malla kibar kan e mi ye lon ka seneyata ma kayitande ko wol mum kullete min yaala be silo ke ɓe kela bari ñin temben to jannin ɓe ñin siyo la jang eh, e ŋaaji internet fanale ka fo ko e, ka fo min stand by forces ok wol fana tina sapin na foro to komin wolbinale ke be molti be ɓe loole ɓe korsiro kela kaji ko tankoye soto e eh, president kuta tombondiŋo ñiŋ na karo la aniŋ bankudiŋol ka je ko semboye seyindi e, eh, sooneya kono a kana ke fitina ti moolu fana si tankala wala b'o kɔnɔ min bɔra ECOWAS la kɔrɔ eh, according to kayito ɲɛ min Um, baraka bake um, lamin uh, kon bi rek babacar am waxtaan bi wax dëgg yàlla foog naa ñëm ñi ko nekk di ko xoolaan si website bi mu nekk ay africa dot tv ak tawa muy si facebook page bi rek bu nga xam ne ñu bëri ñu ko baaxoo di ko fa année am um, uh, di wax ne nag yéen si am um, bitim réew mbaa yéen nekk fii si biir réew mi sax si kanam tuuti ne open téléphone calls ngeen mën a call bokk si programme bi loolu nag nombre bi mooy war a nekk si plus 220 297 944 plus 220 297 7944 plus 220 297 7944 mooy nombre bu nga xam ne si kanam tuuti dinañ ko dali ubbi rek nga mën a kool bokk bu baax a baax si biir programme bi. alright Babacar fu ñoo continuer ak yow rek mooy waxtaan bi ni ñu ko gën a yaatal bu baax a baax ndaxte di moo ñu ngay dem am ñu ko a yaatal ndaxte bi special edition la bu nga xam ne dina am ñaari fan yu nekk. ma barki démb la woon te te moo ko ñaareel fan bi voilà ñu ñëw léegi carrément si wàllum pamit gis ne ne comme convoy bu njëkka ama pamit du laan am mu am naka bataaxel bi nga xam ne moo dalee béy ko si bunti police yi yëgle ne am nañu bëri ñu nga xam ne ñu ngi def convoy yu bëri su dem dañ leen bloqué yoon bi ñu ñu bëri duñ mun a romba soo which am na lu moo demee tam doole mun a am bu baax a baax muy sa yoon sa yoon bi comme ni koy buggee ñu nekkoon képp ku nga xam ne nga war a jëfandikoo am convoy da nga war a bind bataaxel yóbbu ko si butti police ñu gën xam xamee si régional police commissionnaire su nekk si gox-goxaan yi noo ko jàngatee. Ah, waaw loolu mooy xibaar bu ñu jotoon démb. Mhm. Ah, bu ñu ko annoncé dafa niroo ne tiital nañu bëri. Mhm. te tasaare na seen xel bu baax a baax mhm. dañ ko gisee ne daal. président bees bu ñu tànn fu mu nekk ni mi di Adama Barrow xëj na convoyam la ñoo target ndax moom it euh, dafay génn génn bi nga xamante ne dafay ay oto yu bari te ay nit koy topp ci biir oto yooyu la euh, nit ñi foog ne daal xëj na euh, ci loolu lañ ko jubalee pour indil ko ay gàllankoor mm. waaye bu kanamee tuuti démba ci ngoontam gis nañ ay kayit ci online mm-hmm. di wone ne daal inspecteur général ci office am mu fa jógee ne ñoom defuñ lu la mhm. pour di sonal kenn waaye luñ ko defee mooy même ci euh, fànn sëy sa ñoo xamante ne dañuy dem ci bunti lu waaye di sëy mhm. ñooy xamante ne euh, dañuy sëy ak yenn nit ñi ndax suñu génnee moom mhm. dañuy génn ay oto te dañuy bëri te da ngay gis ne daal suñu taxawee ci trafic bi euh, dañ dee waaw dañ dee dog trafic bi te loolu àndut ak loi ñoom ñu ne daal ci façon yooyu lañ ko jubalee kon niroo ne daal léegi dañ dem ba toll foo xamante ne. Mhm. ñu ngi gis ne daal euh, affaire bi féetuwut fu ñu ko fogoon. waaw kon loolu moom euh, lu leer la fu mu toll nii. Mhm. waaw alright soo dangaa gisee comme mu mel ni comme ñu bëri am na seen gis-gis moo nekk ne comme ay xoxotal la woon rek ma maanaam tiitange waaye ba léegi ñu si yaatal ndaxte suñ ko jéem a xoole si another perspective moo nekk ne comme ne ama kaaraange la nde foog nit yi mun a understand lan mooy liggéey police liggéey police moo nekk comme pour jéem a mixone lépp lu waaye wax rek ñu doxal ko jéem a xool lan moo nekk national threat ndekte am na ñu nga xam ne jamono ji nii am dineen def dara di order side ñu gisee ko neneen nga defaat neneen di order side tam gisee ko neneen which means it's a very difficult tax tey la nga am pour war ko mën a advice Gambians ñu nekk si biir fii war a mun a jàppalante ak police yi def community policing pour suñu réew mi gën a mun a nekk am jàmm bu rafet. waaw loolu lu am soxla police moom ah, saa yu nekk dañ de wax ne. Uh, the community is the police and the police is the community hmm. Lulu sen kaddu bu yagal ndax ñom lu ñuy wax moy ne askan bi moy police bi te hmm. police bi moy askan bi hmm. niroo ne uh, jappalante la ci liggey bi ndax police yi ñomi neen amna lo xamantene ne mënuñu def te askan bi tam ñomi neen su du police yi tam amna yo xamantene xamante ne mënuñu def uh, te askan moma nu mel uh, dañu soxla kaarangi loolu lu am solo la waaye da ngay gis ne ci liggéeyu police tam da ngay gis ne tam war na leer tam police tam ci liggéeyam mm-hmm. askan bi moo war a nekk priorité ndax loolu mooy suñu kaaraange mm-hmm. loolu dafa am solo trop mm-hmm. alright dina wax ne rek yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si bitim réew léegi nag uh, téléphone nag ubbi nañ ko ma um, di nga mën a call si plus 220 29 77 944 plus 220 29 77 nine four four di ngeen ko mën a ko li ñu nekk fii inside Gambia di nga mën a ko itam ba léegi itam si plus two si two nine seven seven nine four four two nine seven seven nine four four muy number bu nga si ngeen koolee di nga dem live ida mu nekk WhatsApp mbaa mu nekk Viber mbaa mu nekk si direct téléphone calls incha allah leen si ëpp ne ko di nga mën a call bokk si pour waaye ñu ñaan rek képp a koy call na nga wax si contexte bu nga xam ne moom la ñu waxee nii bëggu ñoo dem out of nga jëm a indi wax bu nga xam ne si boppam mun nañu delluwaat back si anam bu nga xam ne dafay gën a lifin alright ñu ñëw léegi si li nga xam ne tam moo nekk si constitution of the Gambia wane na ne am um, soo bàyyi xel in 2011 président Jammeh ñu ko warla woon on the 19th of January 2011 soo taamam mu nga war a jeex suñ toppee si constitution bi muy on the 19th of January 2017 so which means the moment su keneen di génn rek keneen moo war a éeg the same constitution bu nga xam ne tam moo nekk dem tam ama um, suñ sukkandikoo si kàddu yi nga xam ne Halifa Sallah wax na ko ne ama um, dëgg la ama loi bi wane na ne képp ku nekk président si sa parti mu ngi naa file et pétition te di Supreme Court su nekkee mu ngay dox pétition boobu nag si boppam nag amul dara lu mu yàq ak wàllum inauguration bu mu war a inauguré di new président ok suppose ne ñu nga war a am warloo muy Adama Barrow on the 19 of this month léegi at the same time the same am Supreme Court ñu war a wax ni léegi nag Adama Barrow du war a nekk président lan nga foog ne moom mooy am something waaw loolu laajte bu am solo la ndax mbiri loi la waaye boo ko seetloo même ci xalaat comme noo ko waxee daal loolu mënut a taxawal uh, mbir bi nekk ci bunti loi bi mm-hmm. te loolu li nekk ci bunti loi bi tam mënut a tax uh, ba waataluñ president bi mm-hmm. da ngay gis ne ñaari affaire yooyu fu ñu demee ba daje mm-hmm. kon réew mi réewi loi la mm-hmm. am nañ constitution mm-hmm. loolu moo nekk euh, loi boo xamante ne mm-hmm. euh, moo ëmb luwaay réew mi da ngay gis ne daal euh, loolu fu mu xewee mooy li loi bi wax looloy dox da ngay gis ne jaxaso mënu see waaw loolu moom amul benn jaxaso bu ci nekk mbette bettembo men ɗo lugola tombo meyalon wole keta jeneware karoti ala tili tan anin kononto ko gambia la banko la luwa ya itande ñamen nin président men be marlo la don amari ala fundo lungo aga kele tili taworo wucho wala karte karte foyo nyinga ana tema san gambia be tembo men do ni ya jube président o mi ala wala basirin ayatande la ko asonda no karte foyo nyinna le anin alhalo men findita karte foyo kola bar lokon kelen dɔrɔn a nata yitande ko a man sayindi wo sɔnbaliya fele a bɛ dundi kan eh, waato min ye a lɔn ko wale min a kan sayin tɛn bɛ tɛn to ni gambiya tɛntɛn ta ni alihaalo fo til tan ani kɔnɔntɔn kayiro la karo la i tɛ andra wolu a bɛ sɔrɔ n'o ɲa de ko min bɛ je o ma pare pour ka je awo mu ɲinin kar kende baale ti ka tun wala a kam da kɔlɛ a kɔl bɛ kuma mu ti wala faŋo ye futandi jambi e, bari bawo birin sombaliya ñiŋ naata ke mune naata laaje kotenke wala mu ka kuwo ñiŋ samba kiti bungo nyati la komin ka sombaliya yitandi fa ye seneya ko e, eh, e, eh, ganyobe dami daami a kamta ko luwa isembo sembo soto koo ok bari fana ye ba ye la luwa bundato wote kalindiroo ba ye la e, ni ñiŋ president do la banta e, ñiŋ karo e, karna la tilitanniŋ yo i b'a la ko president kuto ñanta la yo wala kalindiro fana tatinna fana e luwa lo naali ya fo ñameŋ wo tatinna la ko fana min be luwa bundato fana ye lo wota kamuta ko ni nata be kafuñoma woto luwa kambenta komin na wala be tamala woto katon banko fana gambia luwa banko le e luwa kitabo be mbol mi warta luwa kitabo be ti wala constitutional ti ko min be sembere wala bitum e la ko wala be tamala baɗiŋo lo kaala hakkilo bulandi doroŋ niŋ momorondi lafita pour ka e dabula kaca ñiŋ to i e maari si kumandiro keno ñiŋ numaro la naare i maari be banko kaŋ gambia jaŋ dawo da i e se 2977 944 kumandi 2977 944 naare i maari be bantala banko la fanaŋ i e lafita e dabula la kaca to i se 220 2977 944 220 2977944 pour ke dabula kaca ñindo dron ok a baraka mbaake Lamine kon ba léegi ka askan bi ñu continuer waxte yéen rek ndekte tey di wax ne suñ ges tey maanaam suñu gan bi tey si waxtaan bi moo nekk Baboucarr Ceesay Baboucarr Ceesay mus na moo nekk di am vice président Gambia Press Union muy kuréel bi nga ne moo boot képp ku nekk taskati xibaar te naka moom jamono ji mu nekk lu ñuy xoolee si ooyee si freelance journalist maanaam dafay bind pour ko si bépp taseekaay xibaar bu nekk si adduna bi te fekk su nekkee ni ñoom soxla ne liggéeyam te nag moom lu war a ëpp fukki at ak juróom-ñeneent liggéeyam moo nekk wàllum tasum xibaar si fànn yu bëri tey la ñuy waxtaanee naka si li nga xam ne moo nekk si gis-gisam ak tamit lu nga xam ne moom la xam si fànn yi kon nag am nañ ay koola si lañ seet xam moom la kan ak fu muy koole hello koola bi si Yes, good evening. Yes, good evening, sir. How are you? Fine, thank you. Okay, what is your name and where are you calling from? Uh, I'm uh, Mr. Jaune. Mr. Jaune calling from? Uh, All right, Mr. Jaune, thank you very much for um, being part of the program. Yes, you want to contribute? Come back again. Yeah, Mr. Jaune, um, how do you see the present condition of the country? The present condition Yes. In your own analysis. Uh, well, I think we have to continue to pray for peace mm -hmm. in the Gambia. Mm -hmm. uh, the situation right now is very, very um, pathetic. Mm -hmm. uh, we all know that the political crisis, we've been told, is affecting almost every sector of our society. -huh. Uh, we've been told that the businesses are, are, are being affected. Mm -hmm. uh, we also read from the media that some people are leaving the country mm -hmm. uh, because of uncertainty. People don't know what will happen come on the 19th. Mm -hmm. Whether the outgoing president Jammeh will uh, go back to his earlier statement okay. to accept and respect the will of the Gambian people or whether he will um, insist. Okay. So we don't know what is going to happen come on the 19th. But we've been told by the coalition leaders that they are working very hard for the inauguration of President-elect Barrow. Mm -hmm. So we have to continue to pray mm -hmm. for peace to reign in the Gambia, to continue. Mm -hmm uh, because the Gambia is too small for conflict. Uh-huh. And we are all related. Mm-hmm. And because the country is too small for conflict, mm-hmm. we don't pray for it to happen here. Amen. So uh, we still use this opportunity to call on the outgoing president, mm-hmm. mm-hmm. to accept the verdict of the Gambian people. Okay you know very well that Gambia has been winning elections, winning elections in the Gambia uh, for the past four elections. Yes. And we never have a problem. Mm -hmm. Even though the last election, in one of the elections that uh, UDP leader Dabo mm. filed a petition at the Supreme Court. Okay. That doesn't stop the inauguration of Jammeh. Okay. So I also believe that even though APRC decided to go to the Supreme Court, mm and look for a redress. Mm. That, that, that cannot stop the inauguration of President-elect Barrow come on the 19th. All right. Um, Mr. Jone? Yes. Yes, basically um, my next question before um, uh, um, uh, that I would like to ask you is um, what do you think will be the responsibility of the media to nurture peace? Yeah, the media have a very important role to play. Mm. Uh, media being the fourth estate and always set the pace. Should always endeavor to um, report responsibly. Okay. And especially at these trying moments in the country, I think the media should focus more on trying to consolidate the dialogue process and the peaceful means of resolving the crisis mm -hmm. than trying to de escalate the tension. Okay. So escalating the tension will be the worst thing that the media could do. So um, we call on the media to continue um, trying to de-escalate the situation okay. by trying to report professionally and trying to um, especially report on the values of the Gambian people. Mm -hmm. Anything that can contradict the will of the Gambian people, the media should desist from that. Thank you very much. Yes. All thank you very much, Mr. Ama Jawne. Then um, uh, we hope that Ama um, uh, probably, um, uh, yes, Ama, um, uh, somebody want to ask him question? Uh, Mr. Jawne? No. Yes. Mbela fila isa e fo mandi um, ka kan fola luana mo ilalu eh, ko ite be mengje kan sainte na social media la karola. Ah. Fo mu fenne de men sekeno siloti pour ka kairo sabatindi bang be men eh, noma ka yetandi ko kayro e sotono kambia jang ñing alhaalo men ha wo kumoyata baake mm -hmm. yalon social media mm -hmm. ate mu dame yalon mo jamale kaɓenje mm -hmm. andu luwolu ni gana je i e ka be ni je je mhm. adoolu be jewol kawkuya mhm. adoolu mu toñaati bara adoolu nin toñaa jam fata ñoola woto sari nin atole ɓe kuwolu tamela ka kumol fomol ye men yaalo wolle mo toñaati men ɓen na baadiyaale cokindila anin dammaya mu menti ko kummayata ɓaake woto momoɓe wasilo kam mbaforale ko kitti momentum ka katum social media sayin ana fa warta bari mawɗol ka fendol keƴƴe to won kamol mislirɗe Mm-hmm. yoni sa tolbe sawon kala je medinga lo wala mo ko fi membe sabatiri mm-hmm. and wala be kairo sabatin la banko kamba fayale ko keep up the momentum mm-hmm. baraka bake baraka okay i um thank you very much mr famara jaune for that um, a uh, wonderful contribution and then we hope that uh, probably others can also follow Um, uh, you can be part of the program by calling the number that is, um, if you are inside the Gambia, you just call directly 2977 944 2977 944. Or if you are outside the Gambia, you can briefly and then add um, a plus 220 2977 944. 2977 944 kon bi léegi askan bi di leen wax ne yéen nga xoolaan jamono ji Eye Africa TV si website bi ak tam Facebook page bi am nañ ay caller on the line hello caller hello hello kola yaa live yes alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah Nanga def ak fu kanu fooy kole man la Ibrahim maa ngi kole Ibrahim Ibrahima naka Italy naka seede bi alhamdulilah ñu ngi di ko am rek yaa ngi dégg bu baax a programme bi Ah, yee iya, mangi ngi déglu bi dama ko very good Yo rek la ñuy déglu sa bu rafet uh, yeah, contribution more program like more. Mm-hmm. Uh, my book was at uh, present me. Okay. Uh, um, Wow. Uh, for some of the uh, appeal uh, won ko ne uh, na gom yalla mu xam ne yalla la. Mm-hmm. Because uh, at the end of the day, 22 years uh, bu mu fa nekkoon uh, dëkk support nañ ko te jàppale nañ ko si fànn bu nekk te ah, lii su demee ba ah, Gambien yi decide ne ah, dañ bëgg change na gom yàlla mu xam ne Gambien yi ñoo decide mu xool Gambia mu jiral Gambia mu xam ne Gambia benn ndey la baay la mhm. ba pare mu xam ne moom Ah, liggéey naa liggéey boo xam ne lim doomi Gambia ni sakat tuma ñu nekk Hausa Gambia support nañ ko mhm. te ah, laaj nañ liggéeyam bu mu nekk di def o bu mu def kon ah, Gambia mhm. waaye ñu tamit laaj na asi fi nekkuñu Gambia sax waaye dami Gambia mu ñu ne because loolu laaj na ñan am li ko def Gambia di duggee so si ko loolu ñun jàmm rek lañ gañe Gambia mu am so ah, moom moo nekk ak benn président te fu nekk ni ah, mu moo nekk ci place bi comme que jënaangut soñ donc ah, appel pour mu xool dëgg bii ne dëgg jaamal balaa moom xam na fa nekkoon moom génne na ko te jaamal ko génne bi soo nangu moom tamit jam jaama bu fa ñëw fekk mu bàyyi fa jaama boobu noonu su ko defee doomi Gambien ñu njëriñoo jaama boobu noonu continuer fu ñu ko bugga Gambien mu àgga mu àgga foofu noonu ok ok so uh, secondly uh, yéen tamit ñi nga xam ne uh, yéen a nekk di yëngu uh, média yi mm-hmm. uh, maa ngi leen a gërëm di leen sant di di rafetal liggéey because uh, you guys are doing so uh, good job okay. because uh, Gambia before there was information blackout Why waaye tey soo gisee Gambia am access ndam nit yi mel ni comme yéen la nga xam ne ñu naan uh, ni ñu média di information di xam al min li nekka di daw right now ñu ñu nga xam nekkuñ Gambie sax dañ dee mën a rek ci diggante bu ndaw rek ñu xam lan moo nekk dem lu waral mu uh, information bi nga xam ne def day mën a jógee ko bu nekk parce que ñun uh, am online media si nga xam ne ngay follow pour nga am stories ko information bi nga xam ne moo day ko Gambie waaye tey di nga gis di ubbi sa Facebook rek nga any media platform rek nga fekk fa latest news ñu nga xam break na from Gambia. ok fekk du online radio yi nga xam before. mu sa information is too much. anyway understand nga. Mhm. so lu war loolu mooy ne Gambia na si boppam ñoo gis ni it is time for everybody to come on board and then join hand. all right xam ne ah, bi di ñoo comme moom lañ danga delloo danga bañ. thank you. Thank you very much. thank you very much thank you very much thank you very much am ok thank you very much apprécié nañ ko trop si contribution foofu ne si biir Italie kon ba léegi rek di wane ni di nga mën a xool ba léegi rek si nombre si plus 2 am 220 29 77 944 plus 220 29 77 944 ngeen bokk si programme bi live am na kenn si live bi hello hello Kola hello Kola bu si yaa ngi live hello alo kola ah, assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah moƴƴa naftanande ɗigum yaani kalla programme uji ɓe mbaɓe ɓe ɓelle eh, debbo alaji silla e to ɗum alaji silla alaji silla alaji silla ɓe kumandirola min to ɓe kumandirola spain banque o kan spain yemune soto pour ka jansa ñin programme o to yeah. Ah, program programme yang je an en fam walla moy kane bu danga danga yamaro men so ah Eh, wala mo ndi ko men mo do dia je media ka tan amen na media ka ah. eh, nya ha do bi a tin ko ha Kon e na tar ni kairo le mo nya e tar man kairo ni ala ka mo do te kilin a kayro moolu la kɛ kelenw de a he katu a ah, ila layno man a man tara seneyaren ba kɛ waaw um, yes lamin mhm. mm-hmm. ise kumandiro ke no ñaatu domandin a ah, layno ñimman seneya ba kɛ wol mbe tendula jayla kaytandiro ke ko mome ye kaca soto kiwartala la kenya nin daji ko nyanda men tala ni la kibar janyo la karola baraka bage alright am jërëjëf baax a baax Lamine Raka ñuy ñaan képp kuy ko rek nga jéem a am waxee directly si sa téléphone waaye bul dégloo yow fooy xoolaale ndaxte dina tax connexion bi dafay gën a nekk di di ñu disturb muy feedback bi ñu ñaan ku ko rek ngay wax directly di déglu tam sa téléphone bi moom mooy gën a clear daan nga ko dégloo yow si foo ñuy xoolee te loolu dina tax mu gën a nekk indi breakdown wala gannaaw bu lu weesoo rek da ngeen mën a call bokk si programme si plus 220 29 77 944 29 77 944 waaye Babacar balaa beneen call di ñëw rek ñu ñëw dugga directly si ama am li nga xam ne moo nekk development blueprint jamono président Jammeh am na lu mu génne mu tuddee ko si page muy programme for accelerated growth and employment ñu gis ne naka Adama Barrow moom wax na ne moom tam dafa tuddee benn bu gën a xamee si asset muy agency for the sustainability and sustainable socio-economic development mu nekk kuréel bi nga xam ne mu ne dafa tànn juróom-ñaari borom dama tànk yu am solo yi nga xam ne xam-xam dañ ko am ñoom ñooy amee lu mel ni comme ama yeneen façon yu fànn yi nga xam ne comme noonu la ko président Jammeh amee woon. alright ñu jël benn koola bu nga xam ne moo nekk fii nii si réew mi hello koola ba si line bi hello hello koola ba si line yaa ngi live. hello. hello na you are the Kanak for ak fooy yeah I just want to say something my question is not it's just. all right about President Jammeh no. okay i am um, uh, you wanna contribute. okay what I wanted um, to is to respect people's choice and people's choice are our. If if it and if onwards so the only thing that I want to I want him in the year that is the respect people's choice, you know. Okay. You want him to respect people's choice, and that's the only word that we want to tell him. Okay, no problem. Probably I'm um, a, uh, he might be I'm um, uh, watching, but nonetheless, still you can be part of the program. But I'm um, a, uh, before another caller comes, yes, Babukar. am foog naa am yaa ngi dégg muy ñaari groupe li nga xam ne képp koo leen nekk njiit foog nga jëm ko tënk président Jammeh mu ne picc kii asset ñoo jàngatee muy similarité bi nga xam ne moo nekk seen ñaari blueprint yi nii. waaw boo xoolee page bi ak mhm. asset. Mhm. asset euh, di gis ne daal euh, ñaari yëpp ay euh, mhm. programmes lañ yoo xamante ne yëpp programme yi yokkute lañ. Ah, te ci fànn bu ma koy indi mooy ñun taskati xibaar yi. ndax euh, nguur bu nekk bu faloo hmm. lim dee def mooy euh, euh, du ñu em ci di yaakaarloo nit ñi. waaw waaye dara dañuy dem di indi loo xamante ne moo ñu indi yokkute. Hmm. te yokkute boobu noonu nag ñun mi nekk ci buntu xibaar yi war nañoo fexe te gis ne tam. Hmm. tasaara nañ ko ci nit ñi ba pare ñu xam loolu lan la. mooy waaw buñ jógee ci loolu Ah, buñ ci gisee ay tolof tolof wala ay gàllankoor war nañ ko joxoñ mhm. ñan ni ñi mhm. ndax ah, léegi jamono soppeeku na ba nga xamee ne ah, taskati xibaar yi mun nañu jubale naka la society bi di jublu mhm. askan bi nu muy demee mun nañ leen di xàllal yoon ci fànn xibaar bu ñu defee loolu di nga gis ne réer du bëri ndax ñun ñooy ñoo xamante ne ñoo leen di mun taxawal si seen tànk ru ne page bi nu mu meloon boo ko xoolee nu ñu ko daan reporté mhm. dañ ko dee bind comme loo xamante ne euh, sosu na ba pare te am na lépp lu ci war a nekk mhm. waaye du noonu mhm. niroo asset bi ñuy bu ñu tàmbalee programme bi it dañ ko war a seet bu baax a baax gestu ko xool gàllankoor yi wax nit ñi itam njëriñ bu muy njëriñ nit ñi su ko defee nit ñi mun a xam euh, lan mooy programme bi loolu am na solo bu baax voilà ndekte programme bi si boppam mooy assiette bu nga xam ne moom la Adama Barrow yëkkati ne moom la moo dal di sos um, mu ne daf ko dénk juróom-ñaari kàngaam maanaam li nga xam ne di am xam-xam um, bokk na si mu nekk si fànn économique mu nekk wàllub koppar ok am neen koola bu nga xam ne moom moo yàgg a si lay mi hello koola bu si lay mi yaa ngi lay hello asalaamaaleykum. all right thank you very much am you back. Yeah. Uh, what I you know, Gambia is, the most peaceful country in the world. You're right. So, so what I want President Yami to hear that to Anova power to peacefully to Adamaboro, what people choice, so everyone knows you plus space Adamaboro, no? Mm-hmm. So, the only word I want him to hear that to hand over power to Adamaboro, so Gambia, we don't need problems. we need peace already. Okay. All right, thank you very much for the so, concern and also for the contribution. Then please greet everybody in Germany. yes am um, yaa ngi wax lu am solo te da nga gis ne comme wax na ni comme dina ko dénk si kàllaama si bunti économique muy koppar naataange mu nekk développement health mu nekk wàllum wér-gu-yaram ngam bu baax a baax mu ne tam dina jéem a sos mu gën a xamee si expert bank maanaam ñu nga xam ne jàng na school ba jeexal yàlla mel leen xam-xam mënaguñ woon a liggéey mu ne gars yi bind na seen lu gën a xam ne si si bi jébbal ko ay si ay kàngaamam gars yi toog waxtaan seet ñoo mën mu fee jëm kanami réew mi yow taskati xibaar nga te nag lii foog naa ne dina am solo lool pour nga mun a yedd ñun taskati xibaar yi ñi nga xam ne ay ndaw leen ñu war koo mun a tas suñ ko waroon a tas si boppam loo ñu ko loo ñuy xelal. Ah, waaw muy loolu ah, lii moom ah, niroo ne programme bi ñu am ci xel nii niroo ne programme bi ñu am seen xel bu ñu toogee li la ñuy tàmbale mbir yi. Babacar jégal ma rek ñuy jël ok ok ok that's fine continue continue kon ma foo nekkoon la waaw. ok waaw di nga gis ne daal taskati xibaar yi am nañ ci liggéey bu bëri bëri comme ni ma ko waxee. Eh, ñoko wara guest, a gestu te buñ ko gestoo dañ ko wara tojal askan bi ñu xam lan la um mhm. lolu bu xewé di nga gis ne askan bi tam eh, nañ ci am eh, xam-xam kon lu niro nonu Wow, waaw am jéggal ma rek ñi ne amna ku nekk ci line bi hello kola bu ci line bi hello kola hello yes hello na nga def yola kan I'm Mohamed Silla. Mohamed Silla, calling from? Uh, I'm looking at your, prog your program. I'm very happy. All right, thank you very much for the pleasure. And then you want to contribute? All right. All right. ñuy ñaan ñu ne képp kuy call am is better nga jéem a am dugal directly si am kalama idam manika mbaa wolof moo ñuy gënal. ndaxte programme bi daanaka lu ko gën a cover lu bëri mu ngi nekk in local languages so which means foog lu ñu wax si anglais fu ñu jëm koo translated back into man ni ko wolof te loolu daanaka time bi du ko mais ñu ñaan képp kuy ko rek am uh, su nekkee mun nga ko wax either in manika or in wolof fine soo ko muntu wax na si yaa ngi dara ko still mun nga continue with the english waaye na nekk short and precise ndaxte loolu moo ñu gënal bëgg nañoo ok ñu wax fàttali leen number bi rek yéen ñu nekk inside Gambia mu ngi naan direct call to 2977944 2977944 mbaa yooyu nekk outside the Gambia mu ngi naa call either WhatsApp or Viber or nga call directly mu nekk si plus 2202974 2977944. hello Kola. hello. hello asalaamualeykum. maaleykum salaam. hello ay to ɗum aniɓe kumandirola min to mba mba kumandiro yamune soto pour ka a jansa ñin programme o la karo la min be tilindin gambia la alihaalo la kayro la ko la ko Taibang botai ya saya ker penyampu ke po alawatu bandar so adu mulai alawatu bandar bang bosan saya keru. Aika aika dua itu ya. Nabang kau saya ngap. Barakabah. Jadi bangkonya bangkonya dua ratus kan mungkin. Ah. alright waaw kon am am Lamine ñu jégaloon ndeke connexion bi setu ñu jëm a appilaat ak yéen rek képp kuy call ngir yàlla soo callee rek na nga wax straight with your mobile phone or anything lay callee ndekte soo ñu waree xool from your iPad or mu nekk sa ama anything loo ñu mun a xoolee nga war a nekk di ñu déglu there will be a break of some seconds nga xam ne di reception will not be am very good ñu fuñ toog nii te dafaa gën a tax mu gën a nekk something ñaan ku ko rek bu ñu leen dégloo from di ida mu nekk sa mobile phone ou mu nekk anything waaye nañ ñu koolee directly looy waxee kon with means loolu si boppam mooy a baax mu ne am moo ñu gënal laa mi nga yi ma waxal ko suñu mag bi sosé rek kuy koom ku ñu koo rek na wax straight bi di phone waaye na suriwante ak li nga xam ne foofu la ñu xoolee baadiŋolu kala kulo bulandi doroŋ ali seŋ kumandi noo nimaro mee na mu natalɓe banque e bantala plus 220 2977944 plus 220 2977944 bara be commandiro kela la ela commandiri fego mais alon ko wole mu imari e la kollaŋoti i be wole tala do e commandiro e ke bari ni ko i e bem fele la i tara commandiro ke kan fanan o commandiri fe kiliŋo la a be kela hellol ti coki ñolo ñinna karo la wole ka kundun kunduŋo saabu kuma kaŋo la karo la meŋ ka ba la fanna la kala kulo bulandi ro kuman kumandiro kela e mari te tarlan e fango kan kanno e tra kumandiro ke kanga nyama si kosi kino nyola rom se kumandiro ke aranga feler fengol bulaje sajam be kalmol men fola se futa jama alright abaraka bake lamin babu kan kuntina ka watan foma bayla laka lamin ñu tam ci kalama ama manika benen bunte bunga nga xamne mom bu ko nañu moy ama ndawi xamne ndawi ñu bari ñu ama liggéey tey solo advice mooy laisser um, the the actual team of the coalition looy advice gars yi pour ñu jéem a dimbalante la mooy que sa main advice ñu jëm ko lim état mu nekk tri sa tri main advice yoo war a advice comme like su la waroon jox tànn ko ne Babacar yow mu nga xam ne nga nekk freelance for over 19 years in the media yoo leen bëgg nga advice ñu ñu war a mun a dem towards development of the Gambia what will be your three honest advice. waaw li di digga ci mbir gi mooy ah, ndaw yi dañu am solo ci yokkute bi nga gis ok ah, bu ñu leen jiitalee yokkute bi gaaw bu ñu leen bàyyi gannaaw ñu yéex te xij na sax ah, du ñu mun a tàmbali dara li di yokkute waaye ndaw yi dañ leen war a dooleel ndax mhm. boo xoolee réew mi mhm. ndaw yi dañ doonoon ñoo xamante ne dañ demoon ba amaatuñu yaakaar mhm. ndax dafa defee ne tam ñu tol way bi nga xamantene ne mhm. ñu tuti yakar ci lu bari ba nga xamé ni ñu dugg ci yo xamantene ne euh, dara lérul lañ ci mhm. euh, li niro di dem ci baakuy bi mhm. waaw di jël ay gal wala di jaar yoni gannaaw di fo fo xamantene fu metti la te lepp fu muy mujjé fokk ñu jàllaat geej té loolu ay bakken yu bari ñoo say des té da ngay gis ni lulu dafa bari tiis té ñu ñu ñooy xale yoo xamante ne mag ëllëg xam nga loolu lu lu am maana la loo xamante ni dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax baabu kan nga may ma rek am waaw ma jël kola bi si line bi dem from there ñu ñëw si ñaar bi yes hello kola bi si line yaa ngi live hello kola yes alimbara alimbara alimbara ito dum aniba kumandiro la minto dum dam cirkula bi ko baro ne kumandiro la jamon Ah, bisimilahi mune soto pour ka jansa ñin kacato min be denden gambia la alhaalo la mbe temomi aha yes because of you know drive na tembo to na ko ni na ayo ni ko bank ko ni ko no bank ko ni na alo la wo le ke you know the bank ko ni ko ay ko then ko ma te Modi maintenant was baraka bake uh, segu baro ilawo kalmol la yes. uh, baraka bibi babukar se tenden no yes um, babukar ñëw si affaire yi nga ne pour ñu jéem a jàppale ndawi ndekte ndawi ñoo nekk mën nga ëllëg te naka naataange su manqué ndaw rek dina des benn léegi sa ñaareeli am advice boo la advice ne kon ko waaw ci fànn ndaw yi boo xoolee euh, Gambia gestukat yi gis nañ ne Gambia youthful population. Mm-hmm. muy réew bi nga xamante ne ndaw yi ñoo ci ëpp doole. Mm-hmm. Euh, boo ko xayma kon réew mu demee noonu niroo yeneen réew yu bëri ci àddina si euh, dañu war a jàppale ndaw ndax. ëllëg ñu ngi fii la wuyu leen si lay mi nga jël ko. salaamaaleykum. salaamaaleykum. allo. albe. ya waaleykum salaam albe ñaadi. alhamdulilah e toɗungani wakkumandirola min to ke kan ndalam bax a ah, bak bax ye mune soto ka jansa nyin kacharo membe keren gambia la al halo kairo se tenko ki soto no nyame ya gambia no bito ro gambia no da danon do bataka baken dum diamo siata baken diamo siata baken mhm. so ya jamme biraɓe ɗum nanan gambia président yala ɗum ta gambia président yala gambia ɗum le liya toon bon pour kaka ay kudeta ke gandewol naata élection o kara ka tambini so ay banku din kiro na na bur ko ko man na naala faa président yala ayenta wulla kayrol kono so gambia man fitino ni gambia na nanama wo attend so ya jame ta bal fa taala dinnol les wo ko kono le sol min do so kono anin dinnol men be je ani muske bal min be je ani mus no ma to ayenta bal fa so lawlel mhm gambiyamu bankun baaleti gambiyamu banko men ta ɓe wara baakel andu fitino o in fitino nara momo fitino dan alo mhm. fitino moma dandu laalo andin kol ko i ɓeddin mba malala jiyolon nda e mba faalan men mhm. so ngal gambia mi sinno banko woni christiano le dasiri nje tellement fitino lon gambia demu ba kin faakilmo len Eh, a baraka b'a kɛ bax i lawo kumakanw la a baraka babukar yes babukar mhm. waaw Birame comme ni ma la ko waxee daal mhm. eh, ndaw yi dañ leen war a jàppale waaw eh, ndax réew mi nga gis bu ndaw yi delloo gannaaw rek réew mi dina dellu gannaaw ah, waaw loolu dara loo xamante ne niroo ne nguur bi ñëw daal war na ñoo seetloo nu ñuy jàppale ndaw yi ndax ñu mun a am yokkute ci fànn jàng te bu ñu jàngee tam wàcce war nañoo am ay liggéey te ñoo xamante ne tam seen jàng mënut a toll yenn tolluwaay ah, ñu fexe ñu am ay métiers yoo xamante ni moo leen di njëriñ bu ko defee ñu mun a am yokkute ci réew mi mm-hmm. alright beneen bi mu nekk si fànn presse mu ñun taskati xibaar yi ñëpp a ngay jéem a jooti ne press freedom press freedom alright ama ah, tey ama ah, lan nga mun a wax si ñoom ñi nga xam ne nag tey jii ah, ñoom la nguur gi yaakaaragum ne ñoo war a jiite réewi Gambie ay at si kanam taskati xibaar yi ama loo am lu war a mun a joote si seen tur jëmal ko si ñoom. waaw bunti xibaar yi dañ am solo bu baax a baax ak ñoo xamante ne moo di taskati xibaar yi. Mm-hmm. Ah, ndax pour réew mi eewu foog ñu am ay taskati xibaar mm-hmm. mun ngaa am xam-xam waaye foog nga weeru ci ay taskati xibaar ñoo xamante ne mm-hmm. ñëw day dugg a fépp ñëw di dem di jël ay xibaar di ko tasaari pour eete nit ñi mm-hmm. ah, comme ah, borom xel yi nuñ ko waxee rek ñu ne eewute mooy ndey yokkute ndax nit ñi bu ñu eewoo rek yokkute ñu ndax dinañ xam lan mooy xew seen waruwaay ah, loolu dina leen jàppale itam ñu xool lan moo war a nekk seen jubluwaay mhm. kon loolu taskati xibaar yi ñoo ci mën a taxaw ak bunti xibaar yi mhm. loolu bu ñu leen doolelee ñu bàyyi leen jox leen ah, seen ay warugaal mhm. ñu taxaw fu ñu war a taxaw ñu wax loo xamante ne loolu lañ war a wax askan bi te duñ ci ragal kenn du leen ci tiital kenn du leen ci bunxatal wala di leen nott di nga gis ne daal réew mi dina am jëm kanam. ndax loolu lañ tàmbali nii boo ko xoolee ci diggante bi ah, ak nu mu gàttee nii ah, di nga gis ne am na loo xamante ne tàmbali na. Mhm. te loolu bu bu ñu demee ci kanam mu continuer di nga gis ne kenn mënut a delluwaat si gis ne daal di noot loolu. loolu mooy nekk bunt bunti mbir yi daal pour taskati xibaar yi am seen bopp. Mhm. loolu buñ ko defee niroo ne amul benn information boo xamante ni dina mën a toog ci kaw. niroo ne nit ñi dinañ ew nit ñi dinañ xam lu nekk seen way hmm. te dinañ ko mëna jëfo euh ah, seen mbiri jëm kanam yi ok waaw kàddu gëre fi na bala ma wax ki rek mu dem ok ñu jël kola bi si lay mi hello kola hello hello kola hello alright um, am um, ñaka nañ ko ay africa tv la ama fini ci bir gambia nema konku fii um, di indi programme nga xamne special edition nga xam ko am ci diggante man di biram s diop ak lamine dabo ak tama muy babacar cici ñi waxtan ak yeen bu baax ba ci li nga xamne mom moy pour jamm gëna mëna am atam ñu update leen right now lu dem fini ci bir rew gambia Beli gara rek balaa lamine di ñu ak ingi ko tam si kalama madinka rek di leen fatine naka moy fuñ ko jike won moy ama warugal taskati xibaar ama am na xibaar yu bëri nga xam ne mu ngay génn si internet bi léegoo léegi nag mu indi nag tiitaange ñu bëri nga daw di génne si biir réew mi fii because of muy xibaar nga xam ne si boppam kenn xamut fan la nekk di bay ko munuñ koo dëggal ak munuñ koo ñàkk a dëggal wax nañ te baax waa si wàllum éco waa yu nga bëgg a ñëw pour jëm a gis ne jàmm gën a mun am wàllum pamit bi nga xam ne naka muy police wane ne ne képp ku war a am engagement si biti lu mel ni comme nga war a jiital ay oto ñu war a nekk di taxante si biti am lu mel ni comme ñeent ba si juróomi oto si boppam bi maanaam convoy war nga am permit bu war a bay ko si ñoom ñoom nag suñ ko waxee nag mooy seen regional am police commissioner si nga ñu leen toogal si gox goxaan yi ñoo koy joxe ñu ne lu si mbébét nag mooy pour nit ñi mun a am jàmm pour nit ñi nga xam ne tànga léegoo léegi nag ah, nit ne mun a dem sax yàlla bu mu nekk sa affaire ambulance war a romba fekk convoy baa ngi gudda léegoo léegi te fekk lan la a jur ñu ne si gàttal mu nekk bunte bi naka ñu doon waxtaan ak lu nag duñ def dara su ma damaa bàyyi rek Lamine mu engage Babacar rek si kàllaama Mandinka rek ah, bu baax si li nga xam ne moo nekk am ah, blueprint bi nga xam ne amoon na bu njëkk mu si jamono président Jammeh muy PAGE muy programme for accelerated growth and employment beneen bi mu nekk asset bi nga xam ne moom la kii indi ah, wax bu yàggul rek muy Adama Barrow si jamono. Chris Massé mu ne boobu moo nekk agency for sustainable socio economic development muy ASET bu nga xam ne naka seven member comité la dal ami yes lamin ah, baraka bake biran ah, baadiŋolu ka ala hakkiloo bulandi doroŋ ali be ay africa la le nooma kan pour ka ñiŋ special edition o naa feŋ le ñu hami ko la moo doo le laay noo to hello salamu aleykum hello hello salamu waaleykum salaam wa rahmatullah hello itoo ani ba kumandiro la min do ya ndan do kumandiro ce kan ndo mu keba ndo mu keba sun gum baro rek do kumandiro australia aha e yamune soto pour ka lafa nyim programme lo alata ne la fala wala mu ñindi ko na banko gambia banko be ñamen ni kalam banko do la men yalan kon nane nyo banko ngang kalam wala Uh-huh. nga sénégal jële président saba wala boraje uh-huh. be safarenduwa kedela manketanata be tata kayro kono uh-huh. so banque ɗon men fana mbendala nanketa maali ñolde falenduwola kedowotola manketanata so ha jiɓe amérique fana hanin tol ɓe tuwaw du jam men to tem fana falenduwola kedela bo ketanati aɓe kata kayro kono so ndeɓe jamoro nden ñaaronkol la kono merannaani on ɗum ɓe cirim jeeten ay ke jiɓel laade ay gambie ɗuml kanu ay gambie la kayro kanu comme a kon kaa fo ñaamen mm. ay ɓula anoma mi alon ko luway men fo ay ɓulawonoma so min mm. tambitan nga ɓulawonoma ɓaw ɓangomol ɓe eh, président élected commala already mi mm. alon ko dina ñaaronkol ɓe ɓaanoma mm-hmm. institutionnel ɓe ɓaanoma so na naabo ñama naabo nga bula president elect no lankata araw baro so mm-hmm. president jambe ala sirawo ñing a sendi ela mm-hmm. ta kula fo mole dem so mol so mol e eh, a baraka baake baro lo ah, kalimol la e eh, babukar mbela filanse juubero ke tara talam taram bulol men yalan ko o lebel larin fero la karola ñi ñi ma sakunda ku do sita bari uh, masakunda o masakunda e ka bulo le soto e ka hame men na be ila kuolu semben la bari le be la no to so jube assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ito dum ani be wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ito dum ani be kumandiro mi ndedo mu neddo mo abdullahi dabo abdullahi dabo ntomu abula danfa n ka jilloo ke england yo ye mu ne lafaaro soto kumakaŋo la ya lafaaro miŋ ŋa soto ye wo ye ko gambe mu kayra banko ti adu laftaŋo kayro continue ti alfaare duwa miŋ ke gambe wolon duwa kendo ti wol mu kayro ti laftoo kayro continue ti bari wo kayro na yaaya bulu E, outgoing president Yahya Jammeh ay ay bangudin le momoy bangudin ya wadi out ay bo oje ay chance di adama barola di president elect ay continue o fana banko samba man la vitiyaro wa banko kan da kayro ye continue banko kan ya kamengol lamoy le min fay awoke wala indi ko nang imallafa aye tu banko ko ke ka président de aye mu aye bulo ko ma aye banko du aye ro kono a kaya do go banko ko kanne ne a men min ma do ko ke banko kanne do do do go nyi a kana ke modi mi ya lon ka ko do ko tinyal ko tek aye do go bulo place o to mo do fana ya kontinen di wol kage man sa kilin si o buga dunya bang aye banko bula banko dun yes Eh, bankudiŋo ko ay banko bula ya a ñanta moolu moyi ay ay banko bula saayiŋ na ay ye banko ay le dum ye ay duŋ kanu le a ye miira dim alifaa kono dindiŋolu ko kuma doo miŋ diyamta jaman miŋ fo jeeteŋ kuma kiliŋ hmm. bee beŋ daasee rol kaŋ a baake bee ne soto a baraka baake ablaye danfa a baraka baake eh, comme nga fo ñaamen doroŋ eh, babougar sisé ni naata jubeero ke simfa ñaal niŋ hameŋ kuwolu meŋ be e, eh, me ye a loŋ ko ñiŋ mansa kunda kutoo me ye a ko wo lelu mi na sii ito le mel na fe naŋ tubaabu kaŋo to doroŋ wo lemu asetti bari lafta jati kende a ite a je ñaadi le ni naata yiriwaa wo eh, mu kuu ti miŋ ye a ko ah, wo le ñanta a ah, kamata ñaatoŋ ka bunda wo bundaa niŋ a sotota bankoo kaŋ akahamekol nin tamandir bundal la mili lon ko wo silol ta sala hamodol jiko ma alon ko o kumata baake uh, bar ni banko nyin jube min mu gambiyati mm -hmm. e bajala ko jamaa mu fonden kewolti mm -hmm. yo fonden kewo banko min kan dum okay wo banko mu banko leti mi alon ni fonden fondinkewol sembentu